clarification nag fa lay amee. man maa yegg sama da ngay ñëw de. da ngay ñëw Sénégalais a ngi lay ko ba sama bopp dinaa def ko ci format A3 def A4 a samay ñoñ. ak ñi ma ak huissier da ngay indi huissier. ak huissier mu def constat. parce que tey am mun ñuy jooy léegi léegi déggoo problème bu <laughs> yaa doon yett léegi yow yaa doon wax góorgóorlu leen. bañ a kenn li ma leen di conseil. waaw ah, <laughs> yow ci biir conseil yaa ngi ñuy cons. <laughs> eh Jibi Seye sa directeur ngay wax di. waaw waaw da ngay dem dem demande d'explication. demande d'explication yow ci biir conseil mi ñuy cons. non Jibi eh, mais heure dara. loolu du dara fii àdduna la fii àdduna la. gis nañ fii. ñu ni kii moo leen njaboote yéen ñëpp. yéen a waa moo leen njaboote. wallaay heure dara waaw xam naa nag ginaar ak i nenam yëpp yaay borom. moom sunu nit a. dëgg la lii mu la wax àgg su ros la. àgg su ros dégg nga man la heure dara. xaalisam dana génn heure dara. waa xam nga ni la du may lu toll loolu. <laughs> déggoo man la heure dara. waaye yow tagat man lay bañ ma wax déglu bi yow <laughs> gi nekk daan ko waal du jox lu tool man jaaxal na dafa tóon après grand bi ma wooyee bi wax man ah bisu cent cinquante mille mu mën vingt ans yi da nga ko war en famille bu doon sama sagol ñu bàyyi loolu ba vingt ans non wala mu mottali ko rek ba vingt ans. wala mu mottali ko. léegi affaire bi c'est très simple. nanu woo Touré nanu woo Touré confrontation bu ne nii. nanu xool façon xool bi. billaahi mën nañoo compter ñeenti confrontation yoo xam ne xool. nanu woo Touré comptable bi. non non non Jibi. xam nga la may wax salaire am. xam nga la may wax xam nga la may wax mooy dëgg. xam nga la may wax ji confrontation la ñëw. wax si waxu carrière waxu ci waxu waali. ah ak lu ci waali joxe. xam nga la nañ changé sujet bi. waay waay waay yaa ngi dem xool leneen lu ñu wax. moo gën émission bi vraiment man loolu laa. changé suba moom Sidi dinañ la wane la xaalis fu mu. internet yi ñooy seetaan. waaw. suba moom Sidi dinañ la wane la fu xaalis bi dugg. waaw yoon nekku si Sidi bi ma naa la rejeté. <laughs> waaw bu ma kenn woo. lii leer leer na fii ba pare. non leerul kat ku bëgg am suivi leerul. waaw ba ba Wally Seck ñëw toog fii. waaw ba Wally sekk ñëw toog fii. waaw lépp dina leer. kattanu suñu borom. lay indi ak ay huissier. mais yow yaa ngi doon conseiller léegi loo. teema ko woo teema ko woo. non. bul wootee woo woo woo tëdd ko de. non est ma woo wax ko laaw boo piip woo ko laaw. mu sedd nag mu sedd nag. lii kay dañu bàyyi bu sedd. ma ne yow yaay seet wala ma ko. piip ma woo ko léegi. woo ko. Eh, non ah, non ah, non ko waay jaru ko jaru ko jaru ko woo ko lan woo ko mu woote. ma jël jël. eh loo yaa ngi démarré. na démarré non non rek am na. non xaar am. grand dama déglu leen déglu leen rek ah ah. bàyyi leen yéen def na. waaw Wally Seck am na waxal piip. piip piip magum piip ah piip kay. mais Pawlish Mbaye la ngay duggee ci sama appel yow. yàlla baax na. yàlla baax na Pawlish lan moo tax muy dugg sama appel nii. <coughs> wooteel. moo ko tey bu ñu mbëkkante kële de pour yow ah, appel. lan ma fa yow lan nga waxante Pawlish Mbaye. ñun ñi mos garaaw mais ñi nga lekk seen xaalis. lépp eh, xam nga lan la xoolal. <laughs> waaw ñu ngi lay dégg. allo. <laughs> maa maa lay dégg yow sama appel bi ngay yàq ni di ko dugg pour la ma war a woo Waly dama la laaj. Ah. en direct am di mu ñëw Waly jox xaalis xaas mu war ko séddale mu jox leen ku ne cent moom noonu la am na benn jour Waly moom noonu la am ni moom noonu la mel. am hmm. ah, di ah, plus ne loolu mooy si jikko. mu ne lan. am ni moom noonu la mel xaalis moom da koy lekk. mais xaalis pour lal du pour lekk. ñi ko fekkee dafa bari de yow fekkee nga bi ñu leen di jox xaalis bi xam nga joxu leen cent cinquante mille. bu bu la booleeg ay nit da koy jox say nit. mu ne. ma ne bu la boolee ay nit. waaw nga ne nga jox leen xaalis jox ko say ay nit. waa léegi. yéen sama poste directeur bi ngeen. waaw ñu nomination mais bisu. sama poste directeur bi ñu ma nommé ngeen soxore. bisu yëpp am na fi. da da da damaa ay ay yu rafet foofu ay sañse ay sañse yu yàgg. nee ay sañse yu yàgg la gis. ay sañse nag nekkul mu décortiquer. yan sañse ngay war a décortiquer fii. yaa ngi xool suuf la de. non berluti. laaj ma la ko. man yaa ma yàddi. bisu. naam xam nga Sokone. jokke men ma fiy jokke. Jibi jokke. Euh, mu gaaw nga coupé. nee ko xoolal mu ngi mu ngi woo ñu ko mën a tontu nag. dégg nga. ni ka ne yamalaay wax. xam nga façon yi daw façon na yamale say wax parce que yaa ngi wax ak ñu la mën a tontu. xam nga façon yi moom fan nekk nii. da Jibi Seye da nga jël sa temps sañ moom fan nekk nii fan nekk nii. zoom. mooy yabaatu kii. bon police ñu ngi coupé parce que ñun. woote wu ñu émission. parce que alxuraan bu ko àq artiste su mag yi dalee. <laughs> ñun ay magu artiste la suñu àq bu la dalee. bu ma yaakaaree lii nga ma wax mu tàggal sama xol bu la jigee. dafa yebaat fii suba boo seerewul man Pawlish Mbaye ba bàyyi aar ba doon ba. te yow da nga jël sa temps sañte. sonn ci <laughs> sonn ci gaa yi jàpp di ko critiquer di rek. du yoramatul yóbbu pressing rang xuloo ceeg waa ji. xanaa Pawlish Mbaye dafa yàggal. yow Tafa. <laughs> maa jégalu maa jégalu de. Euh, euh, Pawlish jërëjëf Waly mi ngi joué. dee na mi ngi joué. mi ngi joué. mais dina leer sànq. am di am nga temps. que message bi gis nga nee na maa ngi joué mais dina leer. sakk kenn am nga chance de naan sekk dégg ji bi sekk kenn le vingt ah? même bu ma fekkee may sukuraat nan ma diri indi ba. nga fekkee. indiwaale sa A3 waaw ak huissier bi. mais grand bi loolu dara. internet yi ah. loolu loolu grand Adama Cissé. Eh, alhamdulilah xam nga Arona Diallo yéen ñëpp ay seytaane ngeen. xoolal ñu ngi leen di bàyyi leen nag Djibi Sèye sañ seen gis sañ seen artiste la. <coughs> ah kii nee na ma ngir yàlla dañoo soxla zoom dañoo soxla papi dañoo soxla karaajo nga invité leen ñu xam leen soxlawul xool leen affiche bi naa zoomé seen ay photo di ngeen leen xam. Hmm. dëgg la karaajo jar na xam bamba jar na xam duñ nit ay nit de. waa régia ah. firil ba li def. problème am na firil nag. waaw firil naa. Ah. non yow firil nga. firil naa. Ah. <laughs> yow yi appétit kii bi yëpp waxal. illay de la am nga sens da bu baal day joué nee na day joué mais yow am di am di. yow bisu lan moo tax. Euh, euh, euh, yow non non non gars yi dañuy tàggatoo nag fu ñu toll rek. di di ay jafe-jafe ci <laughs> Sénégal yi toujours rek nga may door ci sénégalais la la lu tax loolu ah, toujours rek mais parce que man damay gis ni yow da may dóor ci kaw sénégalais chaque jour yaa ngi dégg te bisu dama la jox cër respecté la bisu li ma def ni bu doon taga ma ko def bu góor la ay bisu lii bu doon góor la eh non loolu daal mos sama xarit nga di bisu doon sama xarit ñaata yoon nga ma wone ma maa ngi des xaalis bi diw leen maa ngi des xaalis yow sama xarit nga mais ah. c'est-à-dire dafa am situation yoo xamante ne bañ ci tolloo ah waroo ko def parce que Djibi Sèye fu mu nekk lii mun na ko téye ay weeri weer tant la fin ñëwul du leer. waaw mais dee ko jox ba la fin jot rek. man kay dugal naa calendrier bi wala ba turé rek. seen <laughs> waroon jël xaalis bi ñu jox rek ngeen jox leen ko parce que tamit dafa bari nga mottali ko sa oto di fay ñu ñu eggalil. d' après li ma calculé vite fait trois cent cinquante mille. kenn ku ci nekk moom nga bu dee nag ma envoyé orange mu ne bu dee orange mu ne la normalement boo calculer frais yi du yegg deux mille. ma ne. yu daal am di amee na leen daal ku nekk trois cent cinquante mille. nañ jàll ci grand bi dañ lay sant bu baax ci acte boobu. c'est que yow gis nga yow yow yow yi ngay def nii yow yow yow da ngay mat def. non maanaam fi ma bëgg a. maanaam yow couteau à double tranchant nga. yow gëmul lépp ci gën a sonn mais xam naa ne yow mi mi mm. bokk ci boole bi. waaw yow yow yow foo bokk yàqalaale ñooñu. wallaay wallaay <laughs> parce que yow la. si man la man maa indi am sax mosul def loolu. ma ma parce que yàgg ko jox mu séddi. ma lay <laughs> yàgg nañ ko jox mu séddi keneen ak keneen. <laughs> man nga ma ngi lay masaw bu baax vraiment ndax man maay tookee maa dugg say mbir. waaw li ma la bëgg dimbali ma si sonn naa. fair play noonu indi fair play <laughs> ay biir ñu mu li parce que yéen fekkee ngeen daal fekkee nañ lépp yëpp fee leen fekk waaw man am na Moustapha am na beneen boo xam ne fuurtalool fuurtalool waale woomu si ni ñoo am di Moustapha waaw laay ndeysaan waaw bi laay walaay te lépp dafa neex ah, ah, mu ngi rafet rek mu ngi rafet rek yàlla na koy di rafet Moustapha day rafet de ah, incha allah day gën a rafet ak dal mais moom da nga ko woo jotoo ko bi ñu leen joxee xaalis yow yow yow da bàyyi wax xaalis bi de naa xaalis mais Moustapha dafa yaru moom te ba nga ko wooyee mën kii xam fu mu dëkk téeméer lañ ko amee waaye kii boo ko joxoon jibi sëy mi mu jottali ko ko waaw man na sama orange mu ne sax bañ na ko du plafonné. voilà kon kay li nga def yaa ko tey. ay man man moom man moom am man bañu ma am nii rek di laay kanam gi ndax xaalis. dama gën sëlmo mooy bëgg xaalis jël jël participation ci démarche yi. waaw ndax xam nga 10 pour cent 5 pour cent am na. waaw jël 100 nit doo def 0 pour cent. <laughs> yow kan ne Even Prod la waxal. <laughs> am na li may <laughs> nga organiser rek. vraiment au sax nga am loo mosal ko. am na waaye loolu loolu. nee mooy 10 pour cent am na. Ah. d' accord naa ndax commission ku ñuy wax Fallou Assane Ndiaye mais 0 pour ci commentaire nee li tafaane tekk jibi hmm. seetal loolu ba ci biir bëgguma loolu. xam naa tafaane tekk setul ci mbir la quoi. ah ah ah setul mbir mi. ñu continuer ba tey dama leen di briefé <laughs> ba tey. yow jibi jibi li bi yi tamit nag seytaane wax dëgg waaye yàq na xel saraxe ci gàttal kon ki xam mooy kon duggure ñun ñooy sarax si yow nag yaa ngi gërëm ak di sant waaye mën lii dinaa ko topp ba mu jeex nii may waxee yow di damay fi egit bu du kër waañ ba mu yeewu wax ma dafa si egit nii ah. fa laa jëm ca concert man loolu maa doon def publicité bi sax bu ah. ma paree fa laa war a dem yéeg waaw kay yow kon da ngay ci kaw seen bi waaw lépp dara leer foofu mais xam nga rek kii di suñu kilifa te moment yow dina la yàgg rek la ñaanal jàmm suñu kilifa di lu warax di la ñaanal jàmm bu a baax ndax tafaa tamit la war la fait ñun la woon la jot ñu la gis ma sa benn réaction bu vulgaire nga nekk à l'aise dal loolu war nañ dem hôtel waxtaan ci daal en tant que équipe waaw bon ñu xool lan la mooy dox parce man xam nga amaguma toutes les informations <laughs> te nit du gaaw a xam nga doon nekk sa directeur nga jékki saa rek dal ci kawam te moom aw ma toutes les informations daal. mais man maa ngi ah, bisu lii ma wax daal ci kanam tuuti di ngeen énervé. <laughs> bisu yow li moo tax am di fan yii di ma woo këram lu ma bëgg mu jëndal ma ko. dégg sama kon yow li des si xaalis lekk nga ko. yow am na mu taal oto bi ni ma non dawalal. amelu amelatu la dara lekk nga yëpp il est intelligent kii. Eh, góor kenn du ko def lii. gannaaw nekk àll am na nag maa ngi tuub parce que confrontation ba pare place bi ngay toog del changé chaque fois fii ngay toogee te li lu ma njëkk jot sotti loxo. côté droite ci am di am di daa réer tàggatoon rek yow yow sax yaay jëkk a tàggatoo pour nga a calme tàggatoon. pérél jërëjëf maa ngi nuyu ñëpp gërëm ñëpp Sura assurance Sura ki jaakatu téléphone ba fàtte waa Sura Modou Kane delu am di bi moo raw ba su abaa ndax melax Modou Kane ma ah di nuyu waa Souran ndeysaan léegi nuyu bu baax eh, ay eh, waa ci nekkoo ci émission démb ak tey de jaxate garaawul <laughs> nekkoo ci émission Galaya yàlla bëri na baax na yàlla baax na man de maa ngi tàggatoo ñëpp di ñëpp di gërëm ñëpp waaye Bijou Ngoné dugal nga ma ci giite goo xamante ne Sénégal gi yëpp man ñii jaaxaluñu ma. Mhm. man ñii jaaxaluñu ma. waaye day tax ku ma bugg boole teeg ñoom day naan non non keroog ba la preuve ku ma gool a sekk rek ba ma buggee boole ñoom tamit am na lu mu wax leen ko rek. ah <laughs> ku ma tamit ñëwoon na tamit. <laughs> nii dama wàcc dama dama jege. Kumba waaw <laughs> waaw waaw Kumba. jox na ma leen mais loolu. loolu du ko gisante waaw dana bu ñu paree léegi dañuy dem sama oto. <laughs> déedéet man man. loolu damaa mu leer rek. non de non naa yéen. non mais man am naa lu ma yow am na ngeen ni Kumba. Kumba. pour le treize bi quoi. pour le treize bi. ah kumba. waaw pour le bi comme par exemple quoi ñu mën a comprendre. am na jafe-jafe yi ma ne fan yii. le treize bi kumba lan. waa kumba boole nañu ñun ñun. kañ depuis kañ waaw kii kay rek publiquement rek. waaw kumba boole sekk boole nañu pour euh, le treize bi. depuis quand keroog la bisu moo ko jox sama numéro mu woo ma. lu la jox waaw léegi li ma jox nag du ma ko télé ñëpp di dégg. da ngeen di ñëw da sama oto ngeen taxaw ma jox leen kenn. déedéet yow yow am na ñu boo ko li ma war yow ma jox la ko. am na ñu nee na daal la ma demoon ci bu wàll bi rek laay def ci biir du ma ko wax. waaw du ma ko wax li ma wax du ma ko wax. du ma ko wax waaw am na ñu am na yow sa teral sa der. parce que li